le roi des arènes euh, ñu fas yéene waxtaan ak moom mais ñu ngi doon xool sa diggante ak Bombardier lan lan moo tax taxawul fi nekk nii. wax dëgg yàlla man moom proposé nañ ma ko ci moom la des ci moom la des mais tey suma combat Eumeu Sène tey laa gën a bëgg tey laa gën a soxla. Mhm. waaw bu ñu dellu see ci combat bi dëgg-dëgg sa diggante ak Yékini. dama ko yàgg suivre te moom ci côté entraînement am ci côté entraînement am faible bu mu am yëpp dama ko xam. moo tax man ko dama laa xam te xamoo ma mhm. tey suma papa mhm. kon dama ko jàppee kon suma rakk tey parce que damay waxtaan moom mu ay conseil moo koy conseil di koy yedd mu may yedd mhm. donc loolu mooy àdduna dégg naa bu njëkk ñu ne CNG dañ doon def benn tournant boo xamante ne ci la ñuy joxe at euh, titre roi des arènes ci la ko maa nga jëlee ba léegi kenn joxe waatu ko waaw boobu ko jële mais man dama bëgg ñu defar ko parce que loolu la am importance